salaamaaleykum mbokku sénégalais yi ñi ci biir réew mi ak ñi ci bitim réew ñi ngi béggee ñëpp ñi nga xamante ni ñi ngi nuy saafanteeg ñun dina encourage si video yi di joxe seen contribution di ñu woo téléphone di woo si whatsapp yi di waxtaan ñun saa su ne fàtte wuñu ñi nga xamante ni ñi ngi commentaire di di ñu encouragé aussi yal na leen yàlla jàppale ñoom it yàlla ñoom moo xam ñoom ñoo xam li ñu bëgg yaa na leen ko yàlla defal parce que reconnaissance dafa baax nit defal la lu baax moom yëgu ko tinu ko comme ni ma koy waxee rek sunu sunu sunu gaay yi nga xamante ne ñoo ñuy jàppale ci liggéey bi te ñun duñ leen gis sax ñoom ñuy jóg di di leen jàppale di leen taxaw ñun fu ñu fekkewul ci sunu jaamu yàlla ak sunu sarax yi ñuy def ñoom ñu jàppale leen ba seen aajo faju bu leen neexoon ngeen lemu rek bañ ñu encouragé mais gis nañu képp ku ci xolam sedd mi ñuy encouragé kon nag ñëpp ñu ngi leen di ñaanal yal na yàlla faj aajo yëpp te yàlla sàmm leen yokk leen gudd fan ak wér ak sutura ñi ci prison yi fàtte wuñ leen yal na leen yàlla génne ci prison yi ñi nga xamante ni ñu ngi feebar ci hôpitaux yeeg kër yi yal na leen yàlla saafaral seen i jàngoro way dawli yàlla tàbbal leen àjjana firdawsi te jéggal leen yàlla bu leen yàlla gëstu yal leen yàlla atte ci yërmandeem ci mbaaxam ci barki yonente bi ñu ngi julli ci sangu sangu yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam julli gu amul benn app moom mi nga xamante ni bu dul woon moom dara du am yal na ko yàlla yokk leer di ko ko yokk muy saawaan di baawan ba ñun ñëpp julli di ñu xacc julli sa àddina bi yëpp ñi jiitu woon ak ñi ñi ñëw ëllëg ak ñun ñi ñi nga xamante ni ñu ngi ci kaw suuf bon bu loolu weesoo nag tey ñii danaa wax nag relation bi ñu am ak euh, ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñoonuy euh, sàkku ndimbal xam ngeen ni euh, nit ki buy sàkku ndimbal dafa war a am nu mu comporté woo ak ki nga xamante ni yàlla teg na ko ci kanamam mu am yaakaar ñu fekk si ne yàlla ci dafay wuti ji yàlla day wuti ji fajum aajo day wuti ji ku ko jàppale ci aajom ku ko jàppale ci dundam ku ko jàppale ci li nga xamante ni moom mooy souffrance am mooy mettitam mooy jafe-jafeem loolu nag mi ngi mel na ngay seeti euh, kilifa kilifa aada wala kilifa administration kilifa Euh, bu mu mën doon ni nga koy seeti jee soli sax costume buñ la waxoon tey ministère am nga rendez wala nga seeti ka ngay dem foofu xam nga tey da ngay solu defar say parfum peñew defaru daal di dem seeti ministre bi wuti rendez-vous nangam nangam mais il est il est important aussi nga xam bon booy solliciter euh, sëriñ bi nga xamante ni moom nga yaakaar ki nga yaakaar nag. dëgg la ki nga yaakaar yàlla la yaakaar pour sa aajo faju mais lépp yàlla la booy dem ci moom am na comportement booy am demee comme saa yàlla fajal la sa ajo mais gis nañ ni parfois nit yi euh, aajo lu mu lu mu mënti mel boo leen laajoon sax ganaar bi gën a tuuti ñu ngi lay añaane ganaar bi yaakaar ni ganaar bi da nga koy reere wala da nga koy ndékkee si bien que sax Euh, defal euh, sëriñ bi lekk sa alal rek faj na sa aajo ndax jaamukatu yàlla bu xolam seddee ci yow rek donte ñaanalagu la yàlla day faj sa aajo euh, comment dirais-je nitu yàlla nga bett ka amul woon sax depanse nga bett ka tey ak benn xéewal loolu rek faj na aajo tey jii amul woon lu mu taal añ walla lu mu toggee ndékki nga ñëw indil ko ay ay xéewal lu mu jox njabootam ak lu mu dunde loolu rek lu am solo la parce que moom mi nga xam day wéetal di ñaan yàlla yàlla yàlla indi ajaaba yàlla faj ajo doomu aadama yi faj aajo askan bi yàlla def lu baax yàlla def yàlla yàlla yàlla fanaane ko yendoo ko yow nga dem ca waaroo liggéey ba ba ba ñaq ñëw séddoog moom defal ko yàlla ci boppam mooy faj ca aajo parce que ñëpp mënuñu bokk métier ñëpp mënuñu defandoo dara ñëpp mënuñu jaarandoo benn yoon kon nag société loolu la kii day jàpp fii ki jàpp fii doomu aadama nag nañu xam benn affaire ñi nga xamante ni ñoom ñooy ñëw ci sëriñ si nañu xam ni foo dem am nañu baax am nañu bon dëgg la mais ñi nga xamante ni jaamu yàlla moo leen tax a jóg te alal taxu leen jóg luñ la mënti laaj ci sarax yow war nga góor góorlu boo ko amul nga wuti ko parce que yàlla loolu la bëgg nit ki bala ngay gërëm yàlla gërëmal nit ñi ba pare wala nga gërëm yàlla sax teg ci nit parce que yàlla ci nit lay jaar yàlla amul jëm yàlla jëmm xaajul ci jën jëmm jëmm euh, attanu ko moo tax ci nit yi lay jaar ci leeram gi lay euh, wécceeku taska di faj aajo doomu aadama yi à travers doomu aadama yi di ci ñoom seen biir jàppalante seen biir moo tax ñu bëgg mu créer ay famille ñuy bëggante di jub ji jàppalante di ànd loolu cette solidarité bi nga xam ne yàlla créer na ko c'est juste pour wane ni dañu war a am respect suñu biir bëggante di yéenente kon nag boo yéenewul par exemple sëriñ bi dara yéene ko au moins mu def sarax bi parce que sarax bi moo koy aar moo lay aar mooy faj sa aajo mooy tax jinni yi mu àndal parce que sëriñ bi mënul dara sëriñ bi ñaan la mën ak li mu jàng ak wala baatin bi ko yàlla jox bu dee nitu baatin comme sunu genre loolu lañu yàlla may muy baatin bi na moom lañ leen mais liy faj aajo doomu aadama bi mooy jinne yi nga àndal wala rawxaan yi nga àndal wala leer gi nga àndal wala euh, li nga xamante ni moom mooy euh, jëmm yi nga xamante ni yàlla créé na ko ñu nekk ci sunu biir mooy rawxaani di faj aajo nit yi ak jinne yi nga xamante ni uniquement dañu nekk ay disciples yu baax di jàppale nit ñi ci àdduna bi ñi nga xamante ni dañuy soxla deret pour mën a jëngatu ñoo xam dañuy soxla sarax bu yaatu pour mën a yëngatu ñoo xam dañuy soxla ay kaamil pour mën a yëngatu ñoo dañuy soxla nga dem liggéey ci àll bi pour ñu mën a yëngatu kon nag sëriñ bi aajo fajul aajo mais sëriñ bi day ñaan mais liy faj aajo mooy li ñu dul gis mooy euh, yi yàlla bind te ñu nekk ànd ak ñun te nga xamante ni ñu ngi ànd ak sëriñ si ñu ngi ànd ak ñiy sellal ñu ngi ànd ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy jaamu yàlla pour faj aajo doomu aadama yi na ci doomu aadama yi bàyyi xel xam ni liñ leen di laaj ay sarax la lu ñuy def ci poche bu dee sëriñ bu jub loolu rek mooy eh, itteem ah, def sarax yi ah, def sarax yi def yi ci war a jënd yi mu war a jënd di toppatoo doomu aadama yi ci ah, li mu war a def mais loolu bu ko doomu aadama deful ak li nga xamante ni moo koy encouragé aussi parce que euh, sëriñ bi bu aajoom fajuwul bu mënula jox njabootam ñu lekk mënul régler problème am jënd yére bu mu sol loolu je pense que xelam du dal pour mu mën a jaamu yàlla kon nag nañu bàyyi siisu gi ak coxorte gi ak añaanante gi ki nga xamante ni yaakaar nga ni moom moo la war a fajal sa aajo amoo kenn ko yaakaar ku dul moom ci yàlla yaa ngi yaakaar yàlla mais mu gisoo yàlla kon nag te yàlla wàcce na ñi nga xamante ni fas'alu la zikri in kuntum laa ta'lamuun ñi nga xamante ni ñu ngi toog ci we ci kaw suuf di ko jaamu yàlla def ci ñoom yàlla nga war a dem ci ñoom sàkku ji yàlla sàkku ji fajum aajo yéene leen sa ñaq te buñ la laaj nga naan lii nañ koy def ak laa nañ ko def jub leen te ngeen jubal parce que nit buy xalaat lu ñaaw rek c'est parce que moom dafa ñaaw moom dafa dafa parce que ñaaw njoot yi wala soxor yi yëpp dafay fekk sa xol moo mel noonu ki xamante ne nag yéene woo ko dara ah yaakaar ma nga dem ci moom sa aaju faju kon nag nañu rafetal te am yaakaar ci nit ñi confiance il faut mu am suñ diggante ak yéen confiance bu bëri mais nag aussi foog ngeen yéene ñu li ngeen ñuy jox mais di wax ay wax yu ñaaw wala di siisu wala di di wàññilu yenn wàññilu yi aussi baaxul bu fekkee am nga ko yaa nañ yàlla dafa jàmm def dégg ak topp ma mm, bàyyi leen xel ci partage vidéo yi parce que waxtaanee am na solo dafay delloo si nit yi nit xam parce que détails yi aussi am na ñoo xam xamuñu ko yaa nañ yàlla may dégg ak topp te defal ñu sutura faj suñu aajo yi guddal fan wér cere incha allah ba suba Thierno Amadou la woon ci waxtaanu ci kattanu sunu borom à à demain allah.